nëga ni daaw lan tase woon fii amal ay kaamil yu tàkku ngir nag seen leader nekkoon si ay tolof tolof ci digganteem ak yoon mouvement jigéenu Pastef ñu ràññee si kenn nag si ñoom bokk ci magu Pastef fii di soxna Adji Seck amaloon ay kaamil alquran si weeru kooru daaw ngir ñaan si comme ni ñu koy defee chaque année jébbal ko daar yi nga xamante ni waajuram ñoo ko sosoon waaye nag beraloon loxo également leader bi di Ousmane Sonko nii la ko fësale woon. ma ne dinaa ci wàcceewaale kaamil daanaa ci daanan ci wàccee kaamil nag sonn rek moo moonu ci dugal ak ak ak i njaboot njabootu ñu ci dugal te xam ne um, Seydina Ousmane Sonko projet bii suñuy sët ba su suñuy sëtaat seen njariñ dana leen ci fekk nee naa leen man xooluma ci lu neex xooluma ci lu naqar ndaxte maa xool ba mu neex ma ma dugg ne man maay maa dugg bëgg a jàppale Ousmane Sonko ndax projet am neex na ma te li mu wax incha allah rabbi bu yàlla la falee cet bu mu toogee heure ba mu nekk ci pale bi danañ xam li tax ñu ko doon ñu tax ñu duggoon ci yàlla buñ ci am dara lu muy réccu Donc un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar fay remercier. ren jii mën nañu jàpp nii kanam gu bel la ñu gis kontaan ndaxte dafa yemook sax nag lan doon ñaan borom bi def ko. maa ne mun lépp. waaye sant sant sant Babacar. <laughs> moom soxna Aji sekk amaat ay kaamil yu tàkku jébbalaat ko ñii mu doon ñaanal bi nekkee daaw si ay tolof tolof ren jii nag jàpp nañu ni kat ñoo ngi pouvoir li ñuy bëgg daal mooy yàlla jàppale leen tamit ba mën a réussir seen mission. comme que dañ fee ñëwoon ñaan suñu borom may ñu ndam nag. moo tax ñu dellusiwaat fii ak mbég di sàkkuwaat rek ñaan yàlla bu yaakaar tas sun njiit yi yàlla leen suñu borom téel boppam ba lii ñu wax askan wi suñu borom jàppale leen boppam ba lépp egg yàlla mën na ko yàlla na ko def. barke alxuraan ji kaamil yi ma xëy wàccee ci kër ga ak kaamil yi ma wàcceelu fii ndax am na daara ñu ma dendal li ma yóbbu indi fii moom laa fa yóbbu ak waa koñ bépp di leen sàkk ci ñoom ñaan dama leen wax dama leen ñaanal leen ma Ousmane Sonko lii mu dig askan wi suñu borom jàppale ko ci mook jomaay ñaanal leen ma jomaay ak Sonko lii mu dikk askan wi ñaanal leen ma ko suñu borom jàppale ko ci ñu am ci ndam ban xëyee di wàccee kaamil loolu laay wax ñu ñaanal ma ko ci bi ma woo faal mit loolu laa ko wax ne ko wàcceel ma ay kaamil ñaanalal ma jomaay ak euh, Sonko lii ñu wax askanu suñu borom ndaxte mooy suñu ndam. daje bi teewoon na fa chargé de mobilisation bu Pastef Djibi Gaye mi Serigne Cheikh Thioro Mbacké honorable député yabaloon ak it membre magi Pastef ña nga fa woon ay témoignage bàyyeekoon na fa woon di firndeel ni ñoom suñoo xaddi dañoo yàgg di gëm yàlla ànd ak engagement bu mat sëkk xamoon nañu ni kat seen projet bi dina aboutir. problème bureau exécutif bu Pastef Touba ak membre yi nekk Pastef Touba yépp li ko tàmbalee ca kaw ba ci euh, militant bi mujj adhéré ñi ngi ñëw di leen jëmmal ci seen tur euh, ndax bi may ñëw laa koy fàttali sëñ Seex mu ni ma na nga fa dem taxawal ma fa te xamal ni soxna aji jamono ji xat-xat ñu nekk ndaxte koo xam ne bi ngay nekk opposition donc sa calendrier mënoo ko euh, couvrir lépp rawatina bi nga xamante ni kàddu Sénégalais yëpp dañ koo boole jox la ko. li ci des mooy ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare nag di leen xamal ne lii nii mooy li war a am rek ndax man li ma doon wax. doon naa ko wax ca France di ko wax ca Italie waxaat ko fi Touba bi nga xam ni defe naa fi la dëgg boofu na ma doon wax ni liggéeyu bii ñuy liggéey ku ko jàppewul jiyaar jàppewoo ko jaamu yàlla sa xam des na man mi maa doon wax bi ñu campagne ni leen ku badar raw ca Seydina Mohamed jeewal raw la ci ba Bamba bala Ousmane Sonko mii rawee da ngay perte. Sénégal gépp am ci ñoom yaakaar yàlla na yan bi woyof Sénégal daal lépp lu manqué woon rek na sun bor ñoo ñaan sun borom mu matale ci nguuru président Diomaye ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. ndax bi ñu fi bokkee teew daaw li ñu doon ñaanal suñu Ousmane ko suñu boroom musal ko ci noon yi ba buñ ko fekkee waatee ñu yóbbu ko ca pale ba ñaan ko suñu boroom nangul nañu ko. lépp lu doom aadama di nekk te du dëgg xamal ne bis dina mës a ñëw mu màbb mais lépp lu doom aadama di nekk te muy dëgg nga teg sa tànk ci yoonu siraatal mustaqim bu ragal dara te xam ne nii euh, histoire dina ko bind. te dina mës a ñëw dëgg feeñ. ay séeréer nag jóge na fa ñëw si initiatrice bi di soxna Aji Seck moom mi nga xamante ni nag daara ji muy jox ay xéewal chaque weeru koor di fi jàng ay kaamil ngir jàmm réew meeg naataange ku social la ku yàgg di jàpp si Pastef la te nag membre à part entière si taxawaay bu mat sëkk bi. ndax daara yi mu ñëw tey di jox xale yi lekk du ni guléet da koo doon ndax xaw ma ay parents bi ma ko xamee léegi ñu ngi bokk di liggéey ci social bu Touba waaye lu nu ci social kenn mënu ko ci. moo cay njëkk moo cay mujj kon loolu il faut moom fi nekkee dinaa ko seedeel man mi nga xam ne dama nekk adjointe Ndeye Anta Bousso ci social xaalis yi di jaar ci man liggéey bu bëri di jaar ci man ma am ci sedde yu leer ci aji sekk mii nu mu ci doon taxawee. soxna aji sekk mën nañu jàpp ni nag tey jii. mbëbëtam leen dong la. mooy le gouvernement de Ousmane Sonko ak le président de la République Bassirou Diomaye Faye am ndam si réew mi.